wajalilaayi maskani tubaabaat misrasmi abijaayi xayri manabaat wajalilaayi maskani tubaabaat misrasmi abijaayi xayri manabaat wasalliyan alayhi abdal salaat asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokk yi ñu ngi leen di ziar bu baax dañoo ñëwoon fii seet si soxna May Mbàkke Eh, biñ ñëwee nag ci ndigalu Touba ca kanam nooru daare ni waa commission sociale eh, indi indil ko ay pousse-pousse eh, ak lu tollook fukki pousse ak ay béykat lu tollook fukki béykat ak juróom. lii lu ñu xeeb la lu tuuti la yéene ji ñu am ci moom ñaan nañ yàlla yonente ba sëñ Touba mu doon lu ni gàññ bañ man ko cee jox bu soobee yàlla ak képp koo xam ni ànd naa ak moom rek doon ni ñoom. jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu waa Touba ci kanam. di nuyu yéen ñi fi ñëw yépp di leen sant bu baax di wax ne kontaan te feeñati na ndax defe naa lii ndolleet la. waaye defe naa li ma jot jot ci ceeb partagé ko des personnes handicapées yi nga xam ne ci man la ñu bokk ak sax ñu bokkut ci man defe naa doyoon na sëkk te ku ne xam na ne handicap pousse pousse mooy tànkam. kon boo ko mayee dafay mel ne may nga ko ay tànk waaye boo ko ko joxee dafay mel ne defal nga yàlla akub yonentam waaye dafay mel ne boo ko defee tam defal nga ko borom dëkk bi c'est parce que ne lii moom bu yaatoo gën a dox defe naa ñëpp dugal ci seen loxo defe naa handicap ak ki soxla lekk ndax tubaax ci kanam li ci gën a doy waay mooy ku ne da ciy gis sa bopp. tey nag kontaan naa bu baax a baax ndax ceeb ñëwoon na yére ñëwoon na xaalisu paas yi itam ñëwoon na lépp egsi na ci ndimbawu waa Touba ci kanam ak particulièrement social bi. sëñ Mourtala mi nga xam ne mooy. président bi kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen wax ne may ngeen ñuy tànk koo mayi tànk nag deseelatoo ko dara kontaan nañ bu baax a baax a baax a baax te dinañ ko jotal ñi ci waaye jot incha allah rabbi yane yàlla fay ak borom dëkk bi ci bàkki xaadim ñuy sant itam muxtala sëñ muxtala bu baax a baax ak yéen ñi ko indi ndax dañ ci booyee sax joxe ak neexal dañ ci booyee di jox ba pare di la neexal parce que def naa ay contact ak ñoom xam naa ci dara wax bi dal na jëfin bi rafet na te loolu rek mooy joxe yal na yàlla fay ci bàkki yonent bi may ngeen ñuy tànk yan na leen yàlla may lu ngeen foogut ci bàkki yonent bi jërëjëf jërëjëf